Vinetamakwa. Come huyo? Ne, quella che na quanto in verde agora agora. Atira box. Vamos, vamos, vamos. tey ñoo ngi faar ci ñi nga xam ne yéen ay suivre à tout baax euh, mën nañu wax ne deux heures de temps euh, teg naa ay euh, simili ginnaaw bi nga xam ne takk der yi réussir nañ neutraliser wala wala wala dindi fi booloo bi nga xam ne moo fi nekkoon boobee mën nañ wax ne dëkk yu bëri ñoo ngi doon tàkk mais fi nga xam ne moo di Fass moom mel ni ndaw ñi fi duré nañ fi temps bu bari balaa ñuy balaa secondaire yi mën a koy jëlee il ñu andi wala ñu renforcer wala andi ñeneen ñoo xam ne ñoo leen di dimbali ngir loolu mën a am en tout cas yéen ñi nga xam ne yéenay suivre ba tey ni ma ko waxee ne ñii di manifeste certes métti na ci ñoom waaye ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy takk der yi da nga siy euh, boo xoolee seen i bët parfois euh, nga xam ne ñoo it am nañ ay joon naam gis nañ si sànq kenn si ñoom euh, gis nañ ko gis nañ ko. mu jël li nga xam ne di vinaigre nga gis ko moo ko doon def ci bëti en tout cas loolu mooy li nga xam ne moo fi gën a fekk xam naa ne xam naa yéen ko gis li nga xam ne moo fi nekk di xew mu mel ne fi ñu toll nii euh, ñoom soulagé wu nañu dégg nañ ñuy tooñante seen biir mu mel ni ne tey coono bi nga xam ne moo fi moom lañu amoon tàmbali nañu noppale ba en tout cas loolu ngeen nekk di gis fi ñu toll nii loolu mooy li nga xam moo fi gën a fës yéen ñi nga xam ne yéen i il a fallu deux heures de temps il a fallu ñu andi nga xam ne mooy yeneen takk der pour bana dimbali ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo fi pour ñu mën a jëlee nga xam ne ñoo fi nekkoon en tout cas loolu ngeen nekk di fa gis xam naa dañu yooyu wan leen ba tey li nga xam ne moo fi nekk comme information mu mel ni ne ndaw ñi fii ñi mu mel ni ne moment bi may wax ak yéen ne xale yi pare nañ ci jàpp leen ne nakate ñoom pare guñu ci ba tey ndaxte dafa mel ni ci beneen wet ba fi nga xam ne foofu la ñu jóge woon jàpp leen ne ndaw ñi demaat nañ foofu tàmbalee taal li nga xam ne moo di ay grenade lacrymogène aussi ci information yi nga xam ne jàpp nañ ko jàpp nañ ko da doon dem ñu jàpp ko gis nañ da doon dem jàpp nañ ko yéen ko gis moo ngi nekk noonu ñu yóbbu naam da doon dox di dem da doon dox di dem mais gars yi jàpp ko waa ji euh, xeeñ ci loxo yi mu mel ni ne ñu moo ngi noonu ñu yóbbu booba tey tegu ci ay baat waaye mu mel ni ne euh, bu ci jéemee opposé wu rek aman na keneen koo xam ne teg nañ ko loxo en tout képp koo xam ne day romb jàppal ne dinañ yóbbu yéen a ko gisandoo noon yéen ko gisandoo noon ñaar ñi jàpp ne jamono gi jàpp nañ leen ginnaaw gi nga xam ne fii eh, manifestation bi amee eh, foofu lañ bëggoon jaar jàpp leen ne eh, jàpp jàpp ne jàpp nañ leen yóbbu en tout cas xamuñu ndax dañ doon manifester wala ndax boo xoolee ñoom set nañ amuñu amuñu leen luy lu koy firndeel mais ki nga xam ne moo di euh, commissaire bi moom xool xencu na loxo booy yi euh, door leen jël dugal leen si biir li nga xam ne moo di auto police bi mooy auto police bi ginnaaw gi nga xam ne ñoom dañoo jóge woon si yoon bi pour bëgg a dem si beneen wet bi loole la ñu leen mayul en tout cas yéen ko gisandoo. gis nga jàpp nañ ko yóbbu nañ ko dégg ngeen li nga xam ne moom la chef bi wax moo di boo xoolee seeni loxo boo xeeccoo di nga xam ne ñoom dañu doon sànni wala sànni ñu en tout cas yéen a ko gis mu mel ne jamono gii ñoom ñoo ngi euh, ñoo ngi ñoo ngi ravitaillé wu dañ leen may ndox bu sedd pour ñu mën a naan en tout cas yéen a ko gisandoo a ko gisandoo Euh, am kenn koo xam ne moo leen jëndal ndox jox leen naam bi ñu ñëwee matul yéene ko jëfandoo ba tey ni ngeen boo leen ko mënee arrêté euh, comme information la aussi dama leen koy jox ndaxte moment bi nga xam ne moom laay waxee jën jàpp leen ni ñaar ñoo xam ne dañ doon dox ci leen leen téye xencu seeni loxo yóbbu leen am na yeneen ñaar yoo xam ne ñoo di jàll waaye ay bu ñu xamoon li ma xam ay bu ñu xooloon ñaar ñi nga xam ne dugg jaar nañ fi léegi ñu jàpp leen ñoom duñ ko def gis leen xam naa ne waa ji nga xam ne teewoon nañ leen bu nekkoon ne moom si tey dina leen xool en tout cas yéen ko gis ci oto police bi ngeen gis ni jàpp leen ne ñaar ñooñee ci leen nekkoon la ñu nekk ginnaaw gi nga xam ne dañ doon romb mais boo xoolee soluñu ay chaussures fermées ay sandal lañ def mais boo xoolee seen i yaram taxul euh, si la ñu dox waa ji woo leen taxaw ñu taxaw ñu mu xool leen xool seen i loxo xenc ko téye leen en tout cas euh, ñu yóbbu nañ leen jamono gi ñoo ngi si oto bi ngeen dégg li nga xam ne euh, chef bi moom la wax moo di boo leen leen jàppatee dee leen leen xool seen i loxo loolu mooy li nga xam ne moo fi nekk gum di xew euh, fi nga xam ne moo di Fass après deux heures de temps boo xam ne booba tey ñoo ngi fii gis ngeen mu mel ni ne dañoo fa yéene dem mu mel ni ne fiñ toll nii li taxoon ñu ñëw fii ñoom def nañ ko ba pare dégg ngeen li nga xam ne moom la ñu wax moo di deux colonnes d'équipe ñii dañu nekkee côté gauche ñu ko gis noon fii mën nañu wax ne li nga xam ne nekkoon na fi dans peu de temps war na jeex ndaxte ñaari oto police yi nga xam ne moom ngeen gis jamono gi ñoom ñoo war a génn yéen a ko gis nee neen deux colonnes d'équipe deux colonnes d'équipe yi ñii dañu nekk gauche ñi nekk droite ngir escorté ñaari voiture auto uh, police uh, pour ñu mëna génn fi nga xamné fofu lañu né en tout cas ba ñu way di leen jox li nga xamné modi information way jox leen li nga xamné mo fi né ba yeen ko ci sando li mo nekk di xew fi suuf jamono ji mu mel ni ne moom mën nañ wax ne li fi amoon euh, xaw na buñ ne duñ wax ne jeex na waaye wàññeeku na ba ñoom seen xel dal na te jamono bi nga xam ne moom la ñuy wax ak yéen ñoom policier yi ñoo ngi noonu di dem ñoo ngi dem fi nga xam ne foofu la ñu jóge woon en tout cas ñu toppal leen gis ngeen lii moo xew fi nga xam ne moo di Fass gis ngeen jamono gi nga xam ne moom la ñuy wax ak yéen waa Fass ñoom ñi nga xam ne dëkkee nañ fi ñoom ñëpp ñu ngi génn en tout cas mooy li nga xam ne moo fi xew xam naa ne dañuy woy xool beneen wet lan moo fa ne waaye fii moom mën nañ wax ne euh, situation bi dafa mel ni euh, ñi fi nekkoon comme ay takk der réussir nañ ko ndaxte sànq. amul kenn koo xam ne capable na jaar si wet bi wala amul kenn koo xam ne mënoon na fee jaar en tout cas yéen ko jitandoo boy lan nga fatene def li lan nga fatene def li lama fatene def ni waaw Wow, wow, ni dama kay jaay ay balu ci allah Mira, la la cama ya. Ah, pues. Yo me ni yo happy ya. Yo me ni yo happy ya. Mira. Ay, mira. Mira. Mira. Mira. Mira. Mira. yere ko jitt ndaw bi jeul na boatu Ah, boitu lacrymogène yi fi nekkoon yëpp xale bi jël na ko nee na da koy jaay ji te posan na la si ah, posan si am wala mën na si am ay jafe-jafe mais dégg ngeen li nga xam ne moom la wax moo di da koy jaay ji en tout cas gis ngeen fi nga xam ne moo di faas fi nga xam ne foofu lañu ñu nekkoon lii moo fi nekk ba tey ñu woy wan leen wan leen dégâts yi gis arrangement bi moom eh, kees bi gis ngeen ni nga xam ne noonu la ñu ko def ñu ko waxee ni ah, fiñ toll nii Fass la ñu ne ñoo ngi Fass ah, Fass mën nañu wax ne deux heures de temps yu métti yoo xam ne doxoon na ci diggante ñi nga xam moo di takk der yi ak ñi nga xam ne ñoo di manifestant yi nga xam ne ñoo fi nekkoon en tout cas mën nañu wax ne moment bi ñuy wax ak yéen fii calme na waat lii daal mooy li nga xam ne moom ngeen fii gën a gis.